gis ñëpp di leen xeelu ndax ñun dañuy wax noonu nag dee suñu kër yi dañuy yuux te gis nga suñu borom day wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko walaw kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadu min hawlik ku ne ko gis nga ak li ngay gën ci nit ñi yëpp yëpp boo nekkoon ku tàmm xol nekk ku ñëg gi ñu gaaral nekk ku jafe nit ñëpp bàyyi la ndax nit ñi rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne rahimallahu walidan waladahu ala birrihi mune ne yalla na wajur wo xamne dafa dimbalé domam ci mbaxam gis nga umar ibn khattab da lan wax ne nañ fexé ba yare nit ñi ci suñuy jëf ba ñen yare ci ay wax gis nga dom boy julli ci karamam do raté julli léegi muy julli mom tamit sa dom bu la musul dégg ngay saga du saga, sa dom bu la musul dégg ngay jëw du jëw waye téléphone bi soné nga ne ko jël ko ne ko newu mu fi hein sa dom sa doom toj kaas bi nga ne ko ku toj kaas bu ne man nga pes ko beneen yoon bala nga naan ko ku toj kaas bu ne tojuma ko ah bu ko defee nag sun borom yonent bi sallallahu alayhi ne ne irhamu man fi l ard yarhamkum man fi sama yërëm leen ñi ci suuf si ki ci kaw asamaan yërëm leen bokk na ci ba tey li tasaari njaboot gi yàq famille mooy film yu bon yi seetaan ngalawaay boo muccee te sa njaboot muccul muccagoo te suñ borom day wax ne yaa ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara fegal leen seen bopp ndax ci ñun rek la yem déedéet wa ahlikum ak seen njaboot fegal leen leen safara kon yow ndekete boo fegalee sa bopp te fegaloo sa njaboot yow ba léegi yaa ngi eh, defagoo li la yàlla déggal kon yenn film yi li lay won ne xale yi lépp lu ñu seetaan ñu koy utiliser man ne temps wu xale dama gis ñi daan seetaan d'Artagnan xaw ma yéen xale yi xam ngeen d'Artagnan ñi daan seetaan temps yooyu bi film d'Artagnan di génn bu foo génn ci mbedd yi dangay gis ku yor épée di kii kon yeneen film yëpp ñu ngi koy utiliser dañ ko dañ ko gisul fu ñu koy utiliser euh, bokk na ci ba tey baal leen ma de maa ngi tënk nag waxtaan wi mënoon na gën a gudd lii xam naa guddal naa loolu waaye gën a gudd lii euh, bokk na ci ba tey lii indi tasaaroo fami ba tey kon foofu it bu ñu doon wax solution mooy ci film yooyu nga fexe bay wutal sa bopp di na ci ay chaîne lislaam di xol télé yi nga xamni ñu ngi wax lu baax nga ki ko mais xoolal tey li ci metti suñ doom yépp pot et Marichou lañu ñuy ko ci wax mu ne oustaz ñu nga ko séra mané waaw té ñom xolal li ci metti moy film yoy tay buñ fexé won ba am ay producteur yu baax ñu xamni njabot gi ci all bi ñu koy sétan ñu fexé ba leen di defal sax lo xamni dinañ ci xamé tuuti ada Sénégal sax lu baax la waye ñun léegi ñu ñuy defal ay film yé du ada Sénégal ñom benen ada la ñu emporter ba pare xalé yi né fi nag dañu fogné lolu ada Sénégal la bu ko defee bokk na ci ba tey euh, yaakaar naa mooy dernier point bi daanaka sax euh, wala avant dernier point mooy chômage bi tasaaroo mooy ñàkk liggéey bi loolu yi bëri na famille yum tas gis nga yenn saa ñëpp bokkuñ darajay muñ am na jigéen boo xam ne bu jëkkëram amatul liggéey léeg léegi ñu dégg leen am na koo xam ne fekk jëkkëram mu ngi am kenn du leen dégg waaye buñ bu amul rek léegi ñu dégg leen am na njaboot goo xam ne fekk waajur a ngi am lu mu wax da ngay foog ne moo gën a bëgg waajuram ci àdduna waaye bu waajuram amatul boo moytul musiba am xale yu jigéen yu bëri wala xale yu góor yi ñu ci bëri bu ñaanee seen papa dara ñu mu bañ ñu mer semaine bi yëpp léegi bu ko defee loolu nag bokk na ci li koy saafara mooy société ba boobu ba ba l'islam ne nañ jël seen responsabilité wutal nit ñi liggéey fexe ba nit ñi duñ nekk ci ay jafe-jafe ba bay àgg ci yenn ñàkk yi beneen bi ci des it mooy société bi ci seen biir dimbalante jàkka ju nek nañ wut modd nu ñuy dimbalante gis na fi ay jàkka yu yalla leen yalla fay ño xamne chaque mois amna ño xamne ñi ñu leen di dimbalé ba biir Sénégal ba légui chaque mois ñu ñu ñu leen ño xamne gën nga tuti ki am ku nek am ci juroom fuk wala témèr dollar té ñom bañ ko dalé def yaakaar ëpp na euh fukkat ak juroom ci ni malé ko déggee ñom ñukoy wax xeyna sëñ Ousseynou samar war nga xam ñi may wax. bu ko défé bokku na ci batay lenn nak la nit mënul fajj mooy chômage boo xam ne tayel la ko waral gis nga tayel li mën a yàq bëri na bëri na suñ dëkk yi aw ñàkk avance lu ci bëri nag boo ko xoolee tayel bokk na ci tayel nag moom li koy faj mooy fexe force nit ñi ñu liggéey ki am kàttan mën a liggéey ñu teg ko ci yoon mu mën a liggéey bu ko defee bokk na ci ba tey ci li nga xam ne moo andi inxiraafaat yooyu mooy déviation yooyu mooy ñaari waajur yi ñoom bañ xam lu yar waaye nag li may wax toujours faaqidu shay'in laa yu'tihi waaw waajur wu yarwul nan la yare te ngeen baal ma de waajur yu bëri yarwuñ de waajur yu bari ci modd boobu may wax moo leen fi andi de ñi nga xam ne dañoo am bag rek dugg ci dëkk bii ñooñu fu ñuy jànge yar bu ñu amul chance ñëw ci jàkk ju mel ni di fi jànge yar fu ñu koy xamee bu ko defee gis nga dafa am benn woykat day wax ne innal yatima huwa allazi talaqa lahu umman takhallat aw abban mashxuula neena jirim deug deug buñ koy wax moy ko xamne dafa am yaay jo xamne dafa dégager responsabilité ak papa jo xamne dafa occuper ba talul ay njabotam neen ki moy vrai jirim mune laysal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa xalafaahu zalila Nena jirim buñ koy wax deug deug xam nga jirim moy ku pa ku papa papaam gañu fekk majeur waa ne jirim nekkul ku ñaari waajuram gene aduna ñu bayiko fi mu tok jirim deug deug moy ko xamne ay waajuram nga ni leung waye yaayam amul ben responsabilité bu mu jël njabotam bo moytul xaalis rek lay top xaju gudi lay dugg ci kër gi ci lay genn bo moytul dañuy yar way duñ yefal papa ji mom occupé foko fekk mu ne dama occupé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay wax ne adibu awladakum wa ahsinu adabahum na ngeen yar seeni doom te ngeen rafetal seen yar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne na ngeen yar seen doom yi ci ñetti jikko xobbi nabiyikum bëgg seenub yonent wa xobbi aali bayti ak bëgg waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa tilaawatil ak jàng alquran ndax mu nekkat ñi yàlla manal mënal alquran ñoom bu ëllëgee fii zilli arshillaahi ci keeru arashu yàlla ga la ñuy nekk yawma la zilla ila bokk na ci yaakaar bi mooy dernier bi bokk na ci bi nga xam ne bokk na ci yi nga xam ne mooy dévier nit ñi ba tey mooy jirim gis nga doom juddu fekk baayam génn àdduna lu metti la ci àdduna ndax euh, gis nga nu ko waa ji doon wooye sax mu naan isama rabbu ahlil bayti xad wala bada lahum min anaasil jafa mu ne ku nekk mën na dee ci kër gi kër gi continuer di dox ba mu des boroom kër bu dee rek kër gi tas gis nga euh, te xam nga yar luwaan li tax mu metti mooy lu la nit def da nga naan bu doon sama waajur du ko def te mën na am bu doon sa waajur mu nekk pire sax mais loolu dafa metti te gis nga moo tax alxuraan tëral na ay solution yu bëri pour jirim rek nuñ koy traité tëkku na ku lekk alalu jirim nee na ko nga ko nan la wóone safara ngay lekk sa biir wax na ne képp kuy lekk alalu jirim di nga tàbbi safara yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba àgg ci ni képp koo xam ne da nga yore jirim di ko toppatoo bu ëllëgee mag yow bu ñuy dugg àjjana ko ñaari baaraam yi la doon su mbaggi day fenqaloo ana wa kaafilul yatimi fil janna ka haatayn wa ashara bi usbaayhi assababa wal wusta kon même gis nga ki nga xam ne day day toroxal jirim sax daanaka alquran da ko dugal ci catégorie yéefari ara ayta yu yukazibu bi diin fa zalika lazi yaddaul yatim gis nga fa zalika lazi yaddaul yatim mooy ki nga xam ne day bëccëngal xaw ma bëccëngal xam nga xam ngeen ko xam foo ko fekk rek day maltraité jirim moo tax jirim l'islam daf ko fonk kon nga la waay te ñun ñi ñëpp famille boo dugg am nay jirim kenn ku ne war nga natt sa bopp ne lan laa mos a defal jirimu sama famille te jirim yonent saa sam ne nee na ku koy toppatoo bu ëllëgee maag bu ñu dugg àjjana nii la ñuy mel comme ñaari kon xanaa ñun bëgg nañ dugg àjjana rawatina nag duggandoog yonent bi sallallahu alayhi wa te bokk na ci li koy maye mooy teral jirim kon nag mbokk yi sëñ Abdou Samad Euh, wax deug yalla lu ci jup suñu borom la lu ci mata matadi doomu adam ak ñak xam-xam rek la bëggoon nañu leen defal waxtaan wu upp wi solo waye nak comme yom yamul ci ben te it waxuñ leen fi lu ngeen musul deg xeyna Abdou Samad da yag di wax di wax di wax ñakul soxla nañ ku ñew rek ci barab bi naan deug la deug la deug la loolu rek mo fi sun sabab waye mosna naa ko wax fi yaakaar ne xeyna legui la jamono melni kérok biñu invité imam Moustapha Diop fële laa ne waaye bi ni ko oustaz Dame Ndiaye di waxee ne bi yeneen école duggagul woon Sénégal bu jëkk de boo yoree benn ala dem Tiwaawan nañ lay tontoo bu demee Touba noonu lañ lay tontoo bu demee Kaolack noonu lañ lay tontoo du changé bi yeneen madaaris duggee rek euh, lay wuutee am ñu naan la kiy wax na li kii wax waaye jamono bi ngir Malick rek nekkee Sénégal wuute amul kon li nekk ci jàkka ji moo nekk 96 moo nekk feneen moo nekk feneen jàkka ji li fi nekk mooy wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada jàkk ji yalla moko mom kon nak seigne Abdou Samad di len féliciter encore di len ndokalé wax deug yalla jotaay bu melni ni solo waaye ñun ñu ngi jéggulu bëggul nañ waxe ngeen lu ëpp ndariñ li waaye nak kenn ku ne mënul wax lu li nekk ci lim xam rek lay wax té ben euh, borom xam-xam day wax ni nit bu lim xam yépp dina wax lu mu xamul ba taxna kon seigne Abdou Samad kaddu gaa nga euh, Bachir ñu ngi jéggulu ñun tamit ni ñuy wax xeyna dana jaxaso ba yow mi koy traduire ma lay dégloo sax dama na no def ba japp li ñuy wax yépp ndax wax ji dong ñun ñi koy wax sax comprendre uñ ko na keneen ba ko dégg diko comprendre comprendre jërëjëf ñu ngi ziaré ñëpp Bismillahir Rahmanir Rahim. So hmm. the last point of his speech is how husbands, wives, kids, and the family structure should be. yéen a ngi déglu wala Okay, so the fourth or the last part of his speech is how husbands, wives, kids, and the family structure should be and he said that one of the uh, main reasons why the family structure can be broken is one of many reasons, and he um, uh, he named a, uh, a lot of stuff. The first thing being poverty, and he said that the Prophet ﷺ himself used to seek refuge from poverty, and Islam also um, have some way to cope with poverty in you know um, make compulsory zakah, meaning giving from your money and giving to the poor people, and also giving sadaqah, giving money for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he says that if a family is poor, that can have an um, effect, that can affect the, the, the children. Because um, at that time, the children uh, they can be very easily manipulated and they can they can uh, they can be easily de deviated because if somebody if a kid comes from a poor family when he goes outside when he um, when he's introduced to um, a richer or a different environment he might be influenced by that and he might be deviated and stuff like that, and that can break the family structure. And um, he said also that the men, men and women, or the husband and the wife, should cohabit in ease and tranquility, because if even if they are poor, but they are patient, they are patient, and they cohabit in ease and they help each other, that will save their family structure. And he said also that the dispute between parents can affect the kids because if um, a husband, a man, is, you know, um, insulting or having a dispute with his wife in front of his uh, kids, that can affect them psychologically because they're growing up. In them, their mind is still developing, so that can affect them psychologically. And he said also that one of the things that can break family structure and uh, that can is when people are not loyal people are not loyal like for example the husband is not loyal or the wife is not lo- loyal or the absence of figure like the father figure or the mother figure if one of them is absent in the f- uh, in the family that can uh, break the family stru- uh, structure he said also that women should respect their husbands. Women should respect their husbands. If they don't, that can lead to the family st- structure breaking because men usually they want they always want respect. They, uh, they always want respect, and women should give their husband the respect that they deserve. And he said they usually, when people talk about marriage, they say the hand of the woman has been asked for marriage. They never say the hand of the man has been was asked for marriage. So he said that men have that respect and they deserve it. So women should give them that respect so they can keep the family structure. <coughs> and he said that if <coughs> if the woman is taking care of the husband's family and he's and he's protecting his house and he's protecting his wealth, then if the man, everything that the man uh, that the man does, he will have the same thing in in reward. And men, women can have that from men, but men cannot have that from women. And he said that uh, one of the things to that can save um, marriages is that women should not refuse the call of their husband, except for an excuse. And he said also that men should work and pay all the bills and um, everything that requires strength and working hard. Men should do it. Men should do it, and that is one of the things that can save the marital structure because Allah Subhanahu wa Taala says, ala nisa," and it's an ayah that a lot of people uh, mistranslate because they often say that men have authority over women, even though it's kind of true. But it means more that men have responsibility and should take care of women. And he said also that men should um, seek counsel from their wives because men should not um, just be in the family and pretend to be, you know, the one who makes all the rules and the, um, his wife doesn't have to say anything about the doesn't have to make any decisions. Men also should seek the counsel of their wives. And he also said that men should overlook some of the things that they don't like in their in their um, in their marriage. And he said he also said that men should have compassion for their wives. <laughs> am na am na am na ay laaj. Ah, ko ñu boole ci bu mag yi kay ñu leen war a sant ak it. dañ ko bind wala laaj. bind ko. Mhm. بسم الله Mhm. kii li muy laaj mooy mhm. su fekkee jigéen amul droit tere boppam jëkkëram mhm. ndax góor tamit am na droit tere amul maanaam amul droit tere boppam jabaram moom tamit asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne dafay laaj ndax su fekkee jigéen amul droit tere boppam jëkkëram ndax góor it am na droit tere boppam jabaram ah, ji ah? bu fekkee comme dégg ngeen ñu wax jigéen li muy ñàkk ñàkk droit pour tere boppam jëkkëram wax leen wax nañ leen ne am na fu mu amee droit tere boppam jëkkëram mooy bu feebaree wala mu am ngànt bu tax nga xam ne lislaam da ko koy accorder ni ki noonu it jëkkër bu amee ngànt jëkkër it mën na feebar comme lii dal nit nit la rek mais bu fekkee ne amul ngànt te àggul ci niveau bële l'islam waxoon ne da koy yare jabaram mooy am nañ ay problème mu war ko yar bu dul loolu l'islam ko kii waaye mu tere ko boppam pour bëgg ko tere boppam rek l'islam du ci d'accord ak moom waaye nag boo gisee l'islam gën a fësal bu jigéen li góor mën a li jigéen mën a résister góor mënu ko résister dañuy wax toujours ne jigéen mën na rëb bi euh, déggal góor mën na rëb bi sooy mais jigéen du rëbb sooy euh, jigéen la ñuy la ñuy sàkk koy muy jafe mais góor bu ko jigéen sàkkoo lu ci bëri du jafe moo tax ñu ci bari sax dama ciy profité ci question boobu yenn saa nga dégg jigéen ñi naan waaw lu tax yàlla moom góor ñi rek lay wax naan wutal ne leen ay soxna àjjana jigéen ñi nag lu ñu leen wutal xam nga euh, àjjana xéewal ya fa nekk yaakaar naa xóoru ay na ci gën a tuuti boo xoolee boo demee ci suratul insaan fi yàlla di limee xéewal yu bëri yu nekk biir àjjana tudd fa xóoru ay فهم يعنى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله إذن باتوا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم باتي ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتم يب أي خيول بوغلي حور عين نوف bari na fu mu tegalee xéewal yi xuuru ay nekk fa kon li ma bëgg a wax xuuru ay ni du xéewal bi gën a rëy ci àjjana benn deuxièmement beneen bi ci des it yàlla mu ngi jàngale foofu ni jigéen dañ koy wut ma mooy du gis nga tey mën am fi ñaari doom ku góor ak ku jigéen nga ne ku góor ki boo amee nangam man maa lay takkali jabar te pourtant day kontaan jigéen soo ne ko maa wutal jëkkër danga wàññi valeuram am nga moo tax jigéen dañ koy wuti kon jigéen bu ko yàlla newoon ko dañ lay wutal jëkkër fee day mel dañu wàññi valeur am moo tax jigéen gis nga su duggee àjjana jëkkëram dugg àjjana jëkkëram rek moo koy mérité ndax moom mooy dàq sa xuru ay ni te xuru ay ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne ku ci jàkkaaroo nag àdduna bi leer rek àdduna bi yëpp leer ndax rafetaay siiñ rek siiñ rek bu ñu ko defee kon kon lu mel noonu euh, kon ngeen baal ma rek kon tontu bi mooy góor it amul droit di mettital jabaram ci yu mel noonu bu fekkee defewul woon ko ndax dañoo am problème mu war koo yar wala mu feebar amu ci droit kon loolu mooy tontu. kii day laaj mm-hmm. nit ki nan la mën a def ba xam ni moom mën naa wóolu euh, ki nga xam ne moom la moom la bëgg a takk laata laata laata ñu kii daal laata ñuy dugg nag sëy waaw xam nga joxe woon nañ ay qualité yu bëri yu tax nit wóolu mooy nga xool diineem xool ndaw si askan wi mu bokk est ce que ay jaamukatu yàlla lañ xool famille bi mu bokk bu wax famille nga xool ay waajuram xool ko moom xool Euh, yi nga mën a gis ci ay jikkoom ndax nit kenn mënul xam léppam nag gis nga ñi ñaan dañoo génn cinq ans sax lu ci bëri buñ sëy sëy du yàgg ndax toujours mbetteel yee am moo tax bu ko defee nag euh, yàgg nit ku nekk damay wax ni képp ku ñuy may jabar dañ lay yaakaar rek may la jabar waaye kuy takk jabar yi da koy yaakaar rek takk ndax nit loo ko xam-xam bëri na loo umpale ci moom kon côté diine bi daal te it yonent bi sallallahu alayhi moo jàngale woon ne képp ku ngeen gis mu tàmm ñëw ci jàkk nee na fashhidu lahu bil na ngeen ko seedeel ngëm kon nit ki li ci kawam rek nga mën gis li ci biram mënu ko xam moy boko gisé ah mu ñëmé daara Abdou Samad ñëmé na placeu diiné yi ah nga yaakar ne ku bax la yaakar rek nga mëna am nak wa te it nit it kenn sédé wolu la biiru nit ñi wa lo rek nga mëna am moy nga xol ay jikkoom xol ay walu jaamu yalla xolit lu melni ni bi mbokk ñiko andal entouré dina la dimbalé pour nga mëna xam tuuti ci nit ki Mm. isa raaytum kon jeex na kese mm. nahnu natawalla zawahir wallahu yatawalla al-bawatin mm. ci kaw kaw gi rek la ñu li des nag ci wallaay dëgg la jazakumullah xayran moom moo tax fu ñu takk see dañ yàlla bu yaakaar tas mm-hmm. Mm-hmm. kii day laaj mm-hmm. nit ki nan la bu fekkee soxna si dafa xam ni ci ci biir sëy bi mm-hmm. dafa xam ni boroom këram dafa am euh, AIDS HIV sida mm-hmm. ndax am na ndax da ko war a fase wala ndax dañoo war a tas yi wala waaw foofu bu fekkee ne dañoo àndoon ci sëy bi moom mu wax ko ko avant ñu ciy dugg euh, bu boobaa ah moom moo ci àndoon ak condition bu fekkee da ko ko nëbboon mu feeñ loolu nag ci ñaar ñëpp lay valable muy jëkkër wala jabar ba ci téere yi bind boobu xamaguñ feebaru sida boobu ñu ngi doon bind ci sikk mooy feebar yeneen façon feebar mhm. yoo xam ne day dal nit yenn saa ku góor ki takk jabar ba pare tële dootu nekk góor yenn saa mu ki yooyu bu boobaa ndaw si bu muñee ne moom mën na mën na muñ doon continuer moom yoonu kenn nekku ci jabar jëkkër ji bu jabaram amee yenn sikk yi mu gis ko ba pare mën koo muñ yoonu kenn newu ci waaye nag bu sikk amee ba pare mu ne daa bëgg a tas dañuy tas sëy rawatina bu fekkee da ko ko nëbboon Mm. maaleykum salaam. kii day laaj ndax. Mm-hmm. ñaari ñi nga xam ne dañoo bëgg a dencante. Mm-hmm. ndax mën nañoo waxtaan ba ànd ci ñaata maanaam uh, góor gi ku góor gi ñaata ñaata soxna la war a am daal. Mm-hmm. maanaam laata ñuy dugg néegu sëy ndax ñaar ñi bëgg a dencante mën nañoo waxtaan ba d'accord ci ku góor gi ñaata soxna la war a takk. waaw man de gisaguma benn téere buy wax ne may nañ jigéen mu wax ne sama jëkkër doo am wujj wala déet xam naa daal ñi koy bëgg a teg dañuy koy bëgg sukkandikoo fële te loolu it day juyewaat ak lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne al muslimuuna ala shurutihim maalam tatawafaril kitaabu wa sunna nee na jullit ñi ñu ngi ci seen lañ chartante fekk loolu juuyowul ak alquran ak sunna te nag alquran ak sunna daa digle ñeenti jabar waxul forcément dañ koy takk l'islam dafa am bunt yoo xam ne nekkul daf ko def obligation daf ko ubbi kum neex def waaye nag xemmeem loo na ku ko mën a def nga def ko gis nga feebar yi am ni mu bëree fi mu toll nii bu fekkee ñëpp dañoo bëgg a yem ci benn jabar na leen wóor na ñi yem ci benn jabar mën na am 60 pour cent bi duñ maandu waaw 60 pour cent boobu buñ maandul fa ñuy dem mën fa jëlee ay feebar ñu dugalaat ko ci seen kër loolu jàmm la loolu kay balaa jàggoon ñu takk andi loolu rek jaroon na tax tey beneen bi ci des mooy ñi seen jëkkër gaañu ñooñu boo ne polygamie du am. ñooñu ku musul am jabar du leen takk lu ci bëri yaakaar naa ñu musul am jabar di takk ñu meloon un pour cent lay doon takk koo xam ne dafa sëy ba jëkkëram gaa ñu bàyyil ko fi njaboot kooku ku am jabar ba pare rek ko mën takk bu ko defee kon polygamie bëri na ay njariñ yoo xam ne bu ñu ko waxoon nit ñi ñu xam li muy euh, li muy défendre ci dëkk bi ci feebar ak yu mel noonu waaye nag de sa jëkkër ne ko doo takk ah man de gisuma fu ñu ko mayee wax dëgg yàlla kon suñu abdou sama benn jullit bu baax. Mhm. boo ne gëm yàlla gëm gëm yàlla dëgg la ci moom di ab jullit. Mhm. defe naa ne wërtu fekk. Mhm. yàlla daganal ci benn doomu aadama. muy saabtaanteeg ci moom mu araamal loolu. walaay def loolu. di ko tegub saabt. li ma tuxarrimu maa xalalahu lak. waaw jigéen bi baax waru koo def. kontaan uhum. uhum. ah, uhum. nag bu fekkee sa jëkkër ba choisir. waaw kay loolu moom te yow loolu nga bëgg. yoonu kenn wu chance lay doon ci yow rek. waaye não nag nañ bind lii signé def ko loo xam ne da nga koy obligé. teg ko si pression. loolu moom jigéen bu gëm yàlla ak yonent bi. wax dëgg yàlla salaam salaam. te tamit góor gu am fulla yi. te am fayda yi waru koo nam. waru koo o que lay laaj maanaam jullit bu jigéen. bu fekkee dafa gis koo xam ni daal. Uh, yaakaar na ci moom wala boo bëgg na ko bëgg bëgg na kooku def ko euh, soxna mhm. nan la war a def ba xamal ko ko ngir lépp mën ah? war a teelu nag baal ma jaaraat ci mu ne jigéenu jullit boo xam ne dafa gis góor goo xam ne bëgg na mu nekk boroom këram mhm. kooku nan lay war a def ah, waaw kon ankay am na ci droit gis nga sey bi gëna barkel barkeel ci sëyu aduna bi seigne Abdou Samad sey bi gëna barkel ci sëyu aduna bi ku ku jigen ki mo déclarer ku goor ki ne ko dama la nopp muy soxna Khadija té mu ngi ko déclarer ki gën ci aduna nak kon loolu lu dagan la jigen amna droit gis ku mbeug bëgg nee naa leen nag jigéen ñu bari li seen problème dañ nan jigen nan lay waxe goor dama la nopp té nak la plupart ñi koy laaj euh, seigne Abdou Samad da gis goor go gëri na jigen ñi ñett nga rek wax ko mu tak la mu ne koy mané ko ki rusul né la dama la nok kay ba ngeen génn ñaari at at kay war nga mané ko takkal ndax bo xeyon am jëkkër mu né dang ko wor kon même bu lolu amul sax même doxanante bu amul seen digën nga gis goor gu baax ñew ci mom né ko man de dama bëgg ko jëkkër yow mi né dooy nga ma jëkkër gis nga bo yaakaara ne même bu la takkul mu wër la mais bu boba mom mo manké ndax déclarer nañ ko ku gën fouf mu nangu kon jigen lolu dagan na ci l'islam dara newu ci waaw lolu lañ ci tontu rek ku gis ku ku mbeug am droit mais nak l'islam gis nga Sayyidatuna Khadija dañ fa jangale jangale bu reuy gis nga kérok bi mi bi mu sallallahu alayhi wasallam nekul nak ne mo démal bopam nak de loolu it ngeen bayyi ci xel nekul ne mo démal bopam ñoo ne yonent bi dama la nopp euh da fay yoni ben ndik xam ngeen ndik xamul leen ndik man ka dama ñëw leçon yi dama cey bëgg boole walé wolof de ndik moy, ku bëgg nit té mënul waxal bopam mu yebal kenn mu def intermédiaire bi moy ndik ci wolof légui nak ndik loolu moo tax bu fekkee góor moo yebal la daanaa dégg suñu baay bi baay Ibrahima Sakho Alaaji Sakho mu ne ndiig nag na nga fexe ba bu mu la dàq nee na nee na sëñ Abdou Samad mii man ma yebal ko mu may doxali soxna te sëñ Abdou Samad dàq ma nee nañ di dem ndaw si mu wax ba pare ndaw si ne ko abbu doon yow dema ma nangu <laughs> moo tax nee nañ bokk na ci charte ndiig nee bokk na ci charte ndiig fexeel ba bu la ndiig li dàq bu la ndiig li ëpp xaalis te nag bëri na ko ñu yónni ba tàyyi mu nangul mu nangu lañ ko yónni ndiigit aussi dafa euh, may leen ma tuuti rek ma leen ndiigit aussi dafa bokk ci ay chartam mooy ne nekk ku am sutura ndiig du ñëw rek ne rajax ne ko diw nee na daf laa nopp déedéet Nafisa ñëwul rek ne yonentu saasam Xadija neen daf laa nopp dafa ñëw ne ko Xadija de bi may waxtaan ak moom moom ni mu découragé ci am jëkkër waaye bi ñuy waxtaan daal mu ngi naan man de ku mel ni Mouhamad mi jikkoom ji di ma ne rek ku ko amoon am jëkkër xam nga mais boo ñëwee ne ko kii dalaa nopp mu ne nopp ma ko diggante bi day te ñun Sénégal dañoo am benn problème mooy xàmmewuñ nopp ak bëgg gis nga tey nit bu noppi woon nit ñu dàq ko xam nga lu koy ay mbokkam bi wax lu mu lay bañe bàyyi ko tey wax dëgg ñàkk nopp du bañ léegi su ko defee ndi day ñëw ci nit ki sëñ Bachir bu bëggee kenn yabal la da nga ñëw ci moom ne ko man de Bachir damay waxtaan yi ma wax ci jigéen yow de gis naa ko ci yow Bachir de wóor ma ne yow soo ko noboon boo moytu su ma ko am mu takk la ndax qualité yi ma gis ci yow nangam nag ndaw si bu automatiquement bu bëggee di nga dégg mu ah, ku ko am jëkkër de kooku de moom vraiment su ma ci jotoon jël waaw bu ko defee nag yu mel noonu noonu la ndiig di doxalee mais loolu dagan na ci lislaam mais nag jaar yoon du góor jigéen ni ko yàlla bindee ak kersaam néew na jigéen buy jàkkaarloo góor ne ko dama bëgg nga takk ma maa ko joxew noonu sànq exemple mais mën nga jaar ci koo wóolu koo xam ne wóor na ne am nga su am na sutura wóor na la ne du la suufu ba pare nga ne ko dooma doxal li man de diw mi bëgg naa bu ko defee kooku dana jaar ak moom kii sax ñëw ne ko diw pourtant di si man de kee daf may wax toujours say wax man daal kii dafa mel daf laa bëgg daf laa nopp yeen saa goor gi ne ko ah ko ko am am jabar de kooku de vraiment xamna ko bax la ah bu ko defee li ci dess mu ne ko man nako wax mu woo la téléphone noonu rek ñom seigne Abdou Samad yi sëy yu bëri lañ leen boole buñ ñu ñaar yi mañ ci rek dañ leen jox numéro yi ñom génn nañ ci kon bobu loolu lañ ci tont hmm. kii de laaj. Hmm. lan la yalla wax ci waajo xamni ni. Hmm. day tak soxna so xamni ni. soxna si moko manam waji waa ko 30 ans. Mm-hmm. loolu mooy question bi njëkk am na beneen question nag. ah loolu dagan na ci lislaam de bu ndaw si majeure rek dagan na ci lislaam mooy bu ndaw si majeure kenn forcé wu ko moom moo bëggal waa ji boppam xam nga sëy sëy moom bu ndaw si xasee ba bëgg ba pare majeure na yoonu yoonu kenn nekkatu ci ah kan moo ci sëy amul age bu naan kii war na takk kii wala warul takk kii góor mën na mag jigéen mën na mag kon dede amul âge euh, ñaar ñi bëggante rek la compte ah waaw kon jeex na <laughs> kon baax na kon ki doon laaj loolu loolu mooy tontu bi hmm. léegi dafa laaj tamit benn question bo xamni ko hmm. man la ko mën a laajee daal waaw hmm. ah, la ko joxo nga liir ko ni ko wax rek de kan yu yow mooy la laajee rek manam ndax nit mën na ok mune ne dafay laaj comme modèle yi nga xam ne mu ne nit koo xam ne xëy na dafa bañ am njaboot bëgg a jël lu mel ni préservatif ngeen baal ma ci kàddu gi waaye nag ci jàkk lañ daan jàngalee lépp nag wax dëgg yàlla euh, ndax mu ne mën na koo de jëfandikoo ànd ak soxnaam loolu de wax dëgg yàlla euh, bi nga xamee ne am na lu amoon ci jamono yi ceddoo ba duggaale fekk jullit lislaam ñëw ñu tudde woon ko al azlu mooy ñu bari dañ daan ànd ak seen soxna dem ba ndox mi di génn ñu tuur ko ci suuf yonent bi saa sam bi ñu ko ko laajee daf ne loolu de mooy al wat u assuxra mooy rey gu ndaw gi xam nga boo demee fële ci suuratu takwir sunu borom mu ngi naan wa isal mawuudatu suilat nee na bis ba ñuy laaj doom yooyu juddu woon ñu rey leen lu tax ban bàkkaar lañ defoon ba ñu rey leen yonent bi baat boobu la utiliser nañ loolu mooy rey gu ndaw gi léegi nag kooku lan la ci jublu ku dem ba ànd ak sa soxna bañ doom moo tax wala lan kooku buñ ko defoon noonu du juddu ñoom bu fekkee sunu boroom nee na bu leen rey seen doom yi laa taqtulu awlaadakum min imlaaqin am na ak xasiyata imlaaqin bu leen rey seen doom yi ngir ragal xiif ndax man yàlla maa leen di wërsëgal maay wërsëgal seen doom te bu ko defee bëri na koo xam ne li tax nee na moom bëggatul am doom mooy doom yi kenn mu leen yar kenn mu leen yor yow mel ni yow yaa xam luy ñëw pourtant bëri na juróomeelu doom buy ñëw boo xam ci la sa wërsëg di ubbeekoo moo tax loolu daal ci misaal man bu ma amul lu ma ciy tontu mooy daganu ndax yaa ngi xañ ndaw si bànneex boo xam ne ndax ku nekk xam na ne loolu day wàññi bànneex ci diggante ñaari wooy dencent te beneen bi ci des bu dee da cee jublu pour bañatee am njaboot danañ ko laaj lu tax nga bañ am njaboot ndax docteur da la ne waru am doom ndax boo amee doom day lor doom ji wala nàngam te loolu day fekk mu nekk docteur boo xam ne koo xam ne muy wax la waaye ñëw rek ne bëggatoo am doom loolu moom l'islam du ko accepté faire ndax boo xoolee ay million nit a ngi bëgg njaboot te mënuñu am njaboot. Hmm. kii day laaj naka lañ mën a kiiwee maanaam tàggatee góor ñi daal ci societé bañ mën a doon kii yu baax daal ay borom kër yu baax hmm. lépp nag ci question bi comprendre nga ko bu baax bañ ci. am ak ay yu comprendre ma question. ñuy góor. waxal ci anglais ma ok how do we fit the men in this society so that they can be husband something I don't know I cannot read that. good husbands like no. Oh, hmm? What was your question? without interacting with the with them too much comprendre nga wax dëgg yàlla. Mm-hmm. kii ko laaj anamu. question jàmm lu ko lii. mu ne. eh nga ne lan ka ma wax lool. moom lu mu laaj ma ne xaw ma sax ne ko ma jox ko toroxal. ne ko ma jox ko toroxal ah xamul lu mu laaj de. kii day laaj kii day laaj. wax mm. Mm. Mm-hmm. Ah, kii dafay laaj dafa xaw a bëri nag li muy wax. Mm-hmm. maanaam lan mooy. Mm-hmm. <laughs> maanaam loo xalaat ci. maanaam rôle lu parents yi daal ci mariage yi ndaxte lu ci ëpp parents yi ñoom dañ ciy dugg dugg ci maanaam dem ci ba ba sor ci daal. Mm-hmm. ba ba dugg xaw ci dugg dañ ma jéggal ci loo xam ni seen yoon nekk ci daal mën mën nañ koo bàyyi ñoom ñu defal ci seen décision boobu waaw. ba noppi tamit lu ci ëpp ñoom. Mm-hmm. seen doom day nekk ci biir néegu sëy ba mm-hmm. ñoom ñu bëgg a jël seen doom yi defal leen seen décision yëpp. ba noppi tamit. Euh, ba noppi tamit mën nañoo jël ay décision yoo xam ni sax ba kooku boroom këram d'accord ci wala boog day dàqonteeg li nga xam ne moom la boroom këram bëgg ba noppi loolu di indi ay problème yu bari ci néegu sëy kon naka la ku jigéen ki nga xam ne dafa nekk ci biir néegu sëy naka la mën a balancer diggante ci sëy bi mu nekk ak digganteem ak ay parent ak ay parents mu ni yaay yi nag ñoo ci xaw a gën a waaw kon dégg ngeen laaj bi mu laaj mooy parents yi nga xam ne wala goro yi di dugg ci seen sëyu doom seen doom di sëy ñu nga fay bëgg a nekk ñooy di jënti ñoo koy defloo ñoo koy bàyyi ba liñ bëgg a wax foofu rek jigéen biy sëy na xam ne jëkkër moo gën a foor yaay ak pap may dégg jëkkër moo gën a foor yaay ak papa waaye xam nga lu tax papa ak yaay ak yi ñu amoon dañ ko jël may ko jëkkër waaw mënoo maye nag ba pare wëlbati ko bëgg a moomaat léegi nag loolu bu ko jigéen bi xamee man daal ci tënk lépp lu may wax jigéen ci wàllu sëy dama naan la lu lay nit di digal di ko nëbb sa jëkkër bañal lu la nit digali te sa jëkkër àndu ci bañal gis nga jigéen boo sëy ak góor war na nekk sa complice ba nga gën koo jege sa yaay gën koo jege sa papa ba nga xam sa yaay ak sa papa danañ xam ne lépp lu ñu la wax di nga wax sa jëkkër mais parent bi amna droit nak dom mom toujours it doom lay ne amna droit lu mu gis lu rafet ndax it du parent yep ñoy digal lu bon yenn saa it ba nu normal ay wajuram it déplacer wu xeyna man ci dara bu bu dee parents yi dal nañ xamné ne bu féké lu rafet lañ ci def yalla dina leen fay bu dee dañuy dem pour takal le Loli lolu bakkar rek lañ ci am lolu dal ci teunk moy tontu day laaj mm-hmm. na mooy anam bi gën ci ñaari nit yoo xam ne dañoo bëgg a dencante la mooy anam bi gën bi nga xam ne noonu lañ mën a xamante ci lislaam ak tamit ndax bu fekkee ñoom ñaar ñi ngi waxante ci mbiru euh, dencante ndax dafa war koo xam ne maxram daal mu mu mu bokk ci maanaam mu xam lii xew daal maxram ci côté ku jigéen ki wala waaw ci côté ku jigéen ki mm-hmm. en tout cas bi jamono jaxasoogul comme nii de yaakaar naa pour jigéen am accès directement ak góor yombul woon da nga daan dem jaar ci kii yenn saa bëri ñoo xam ne doxaan nañ bay waaj a takk sax li ñu wéet ndaw si bëriwul léegi rek ngay dégg ku naan la maag moom ñoo àndoon tukki wala ñoo àndoon dem fee maa ngi koy wax bër ki dem rek ay xale yu may jàngal ma ne leen su boobaa ne leen wóor ne waa ji du leen fonk di euh, fekk ñu ñu may jox benn misaal ci benn théâtre buy am ñu ne ma kooku ànd ak faram yi ma ne leen kooku daganul ma ne te bu fekkee scénariste bi bind théâtre bi normal na sëy boobu normalement warul am wala su amee daa war a tas ndax jigéen bu bàyyee kër param ànd ak góor fu ne muy lambar lambari kooku sëy waru fa am gis nga góor jigéen capital mooy yaramam nit boo bëggee mu fonk la sa yaram boobu na ko ko privé waaye bu fekkee ne euh, fu mu bëgg a wéet ak yow wéet ak yow fu mu bëgg ànd ak yow ànd ak yow te takkagu la kooku bu la takkee du la respecte kon point yi ñu waxoon sànq ci biir waxtaan wi mooy ay qualité yooyu xool nit boo ko xamul mën nga xam ko xam jigéen bi boo ko bëggee takk soo ko xamul it mën nga laajte ba am ku ngeen boo xam nga laajte ñoom nuñ mel ak yu mel noonu bu fekkee ku góor kii boo ko xamul mën nga xam ko xam te parent yi sax ñu ci bëri noonu la ñuy def boo ñëwee ñu ne la kan mooy say mbokk Sénégal dëkk bu ne ku ne am na fa mbokk ci saase dinañ woote foofu nelaw la kii wala ñu laaj la koo xam ci dëkk bi yooyu yëpp ay moyens la yu ñuy def gannaaw l'islam gi parce que li ma leen wax sànq rek te Oustaz Abdou Samad Firi ko léegi mooy xam nit yombul moo tax li nga ci mën a gis ci moom yenn saa nag gars yi bu ñu xamee ne yokku ku jullite nga ci jullite gi lañ lay jaar dañuy ñëw fi la rek benn jigéen mu may nettali ne waa ji ko bëggoon bi mu ñëwee xam ne comme moom dafa jullite ci ëtt bi rek lay fanaan di julli rek ndekete waa ji noonu bu ko defee yu mel noonu day am waaw mais teewul tey tey ak it jigéen bi loo bëgg-bëgg góor bëgg-bëgg sëy bu réeroo ak say waajur ndax mën na am góor yi tax ngay say waajur moom su ko ay waajuram ko bul takk du takk te li may wax toujours soo demee ci nursing home yi fekk fa ñu am feebaru vingt ans wala juddu mal transformation man gisaguma ko dem ne dafa cay takk ngir yàlla jóge fii rek dem ne man daal ci ñooñu laa bëgg a takk ndax ku leen takkul lu ñu am jëkkër wala ñom laa bëgg a sëyal waaye bu ñu la sëyal man gisaguma ko te pourtant dé am nañ day am bay ñu nga fot di leen top top motax respecté leen seen parents yi te gis nga jigen bu bëggé mucc képp ku muy bëgg te koku pour mu jox la cër sa lu mu wax ak yow nga ne ko xaar ba ma laaj samay parents lolu dina tax mu wék la dina xam ne yow ko am kilifa la kat waye bu sama parents d'accord li man dina sé ak yow mais kooku do la respecté ëll dé xam ne kilifa kon lool rek lañ ci doon wax moy daal lañ jàngalé won ci façon yi jikko yoy peut-être question yi bi mi ñëw yakana ag guñ ci won moy ni ñi tanne jabar waxon nañ ko ak ni ñi tanne tànne jëkkër zone ba mi taal yëpp wa ki day laaj ndax dagan na ci ko xamni da hmm. daa bëgg sàkku xam-xam hmm. mu yéxé dug neegu sey bu fekkee dagan na jigen bi oh, xoma nak ndax jigen la wala goor la hmm. bu fekkee nak dagan na kon ñaata ñaata bandir la wala la wara a maanaam jàng bi daal wut hmm. sàkk xam-xam ban diir xam nga euh, mbiru sëy li ci bon rek mooy nit ki ne du ma sëy te jublu ci rahbaaniya hmm. wone ne da koo def genre jaamu yàlla moo tax bëggul sëy wala bëggul nàngam léegi nag mu des nag bu yooyu amul nag ñu xool nit ki li muy jënd li ndax jar na ko xam nga nit su ne damay jàng ba pare su ko sëy kon moom gëm na ne dina fi dundaan ñaari at wala ñetti hmm. euh, suñ benn ustaas bu baax dafa mos di nettali ci benn rajo ma koy déglu mune ne papam bi muy dawal auto ben gendarme da ko mossa a ne ko gor gui yow xam nga dina la tejj kasso ñaari fan ne na gor gui ñok ñok daal di génn 1000 francs jox ko gendarme mu ne ko lii lan mu ne ko dama lay neexal ndax yow comme xam nga ni dina dund ñaari fan ba nga may tëj ñaari fan man lool la lay neexale ne na gendarme ne ko téel sa xaas yéen ni ngeen di def rek di sank nit ñi mais gis nga bari na luy nit di def gor tok naan suma amé fanwéri fanweeri at laay su ko takk jabar kan mo ne li nga am fanwéri ñaata jeune ño dee ci 25 ans ñaata ño dee ci 20 ans ñaata ñoo dee ndaw si toog naan su ma amee euh, masta lay su ko am jëkkër kan moo ne la di nga dund bay am masta te jëkkër gi chance la boo xam ne mën nga cee am doom balay yàgg kan moo ne la doo fi feebar ci diggante bi feebar boo xam ne mën na tax dootoo am doom ah kon nit ki bu fekkee gis nga koo xam ne bëgg nga ko mu bëgg la kon bu yeboo nga dem sëy sëy yàqul dara ci jàng sëy ñi ñi bëree ngi sëy tey di jàng seen jàng yàqalu leen dara kon amul ay at yu koy lislaam di may naan ko da ngay toog ba àgg fii déedéet moom kay bu matee sëy gis ku ko bëgg li yonent bi saa sam wax isa jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawiju waxul woon ne nañ xaar ndaw si waxul ne nañ xaar kii bismillah man euh, mhm. mhm. allah. ah kon exemple la ñu doon exemple macha allah. gis naa fi gis naa fi boo xam hmm. ne. bi mu amee high di dem kaale. la takk. allahu akbar. léegi imam bu mag la boo xam ne ñaari doctorat PhD la tout léegi lan la lan la ko wàññi moom mi teel a takk jabar. liggéey surgery head head léegi sëñ Abdou Samad sëñ Abdou misaal bi may joxe ci yow xam nga comme moom moo taxaw léegi sëñ Abdou Samad. moroomam it toogoon naan dañuy xaar ba ci kanam takk léegi lu ñu ko tane hmm? kon mu ngi noonu hmm. aywa bismillah lii hmm. dafay laaj maanaam bi mooy laaj question bi waaw eh, bi mooy laaj question bi déglu leen ci jigéen ban góor ci société moo gën a baax ci jigéen kon euh, laaj bu mujj bi mu ne ban goor ci société bi mo gëna baax ci jigen, han Lolo. moy liñ waxon leg rek day delluwaat ci hadith bi iza jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu goor daal bu diineem rafetee mu am jikko yu baax moy mu am jom euh, duñ ko gis ci luñ ko warul gis ci lañ ko wara gis fu fuñ ko fekk gis ko ci ko kenn gënu ko ci goor jikko nak bu rafetee lepp rafet jikko danaka mom man nga ne moo tënk dundu nit ki yep rek xam na xëy na dinañ ci amaat sëñ Abdou Samad beneen jotaay incha allah mooy góor gi sax nan lañ ko war a préparer bala muy takki jabar jeune bi ci boppam bu tollee ci at yi mu war a takkee foofu ban formation la laaj ci ban façon lu ñu ko war a jàngal extra extra yooyu yëpp xëy na dinañ am jot gën cee xuus bu baax a baax. Hmm? te it incha ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu mën a liir sëñ Abdou Samad ku ma ku ci mën a am téere boobu ñu tuddee tarbiyatul awlaad bu alxalawaan yi maa ngi leen di conseil ku ko mën jënd nga jàng ko tarbiyatul awlaat boo xalawaan yi téere ñaari ñaari kii la téere boobu boroom xam-xam yu bëri dañuy wax ne ni mu complet ci wàllu tarbiya gisaguñ téere bi ko complète ci wàllu tarbiya ku ko mën jënd liir ko wóoruguma nag ndax am na anglais wala dara téere la boo xam ne daanaka waaj day topp avant nit di juddu lay commencé ak yow ca tudd maag werante fu mu am dina la ne lii wala lii vraiment téere bu am solo la Mm-hmm. tarbiyatul awlaad al abaraat moom mooy bu man fa lu tiiba mm-hmm. kon sëñ Abdou Samad kàddu gaa ngi noonu bismillah ah, Bachir ñu ngi lay sant bu baax de sama téere bi nag bu mu dama koy def bii mooy tarbiya awlaam am nga ko tarbiya awlaam bi mais nag dafa manqué dafa manqué fi mu toll mais téere bu baax ni am sax ñaari jusu la mais téere bu baax